كالهادي المزيد لسوانا كل من ليس يكون زمن لسوانا كل من ليس يكون بسم الله بسم الله نوالي الله بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح صدري وأسلي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه الحول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحليم حكيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اما بعد ان الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ñu dellu si waat si taxawaay bi si tey taxawaay bu njëkk bi lan la am taxawaay bu njëkk bi ñu ngi am uktub suratul fatiha da ngay bind fatiha baax da kulu aaye nga dugal wasamaay wa taarix ñaareelu fatiha bi baax da kulu aaye nga dugal kursiyu ñetteelu fatiha bi baax da kulu aaye nga dugal falaqi ñeenteelu fatiha bi baax da kulu aaye nga dugal naasi juróomeelu faatee bi baadakul aaya nga dugal way di yakkaadoo juróom benneel bi baadakul aaya nga dugal surtout rat kii nii lañ koy bindee nii lañ koy bindee kon di nga am juróom-ñaari faatee mais faatee bu si nekk day am lu muy ràbbalanteel soo ko bindee nii ba pare soo ko bindee nii ba pare da ut fukki puso ak benn 111 puso onze lamset ak ndoxu géej onze 111 onze puso 111 lamset ak ndoxu géej ndox bi kenn du ko rax moom ngay da ngay boole saafara bi baxal ko ba mu bax guddi nga bàyyi ba sa kii yaram ñeme ko lu mu gën a guddi nag gën a baax nga sangoo ko benn yoon rek lañ koy sangoo benn yoon du ñaar du ñett benn yoon. ndox géej bi mooy waaw mooy nekk saafara bi dara du ko rax soo bindee nii pare ndox géej ngay ut boole ko lii yëpp dugal nga baxal ko mu bax nga teggi ko ba sa yaram ñëw ko nga sangoo ko benn yoon rek benn benn kii ku ko sangoo benn yoon rek. am na laa xam ne sax mën naa wax nii mais am na laa xam ne xam nga yàlla moom mooy def mbir yi yow mi ko sangoo yow yaay xam. lu may mën a wax yëpp mënuma wax lépp li ci nekk ki ko sangoo rek moom mooy xam la moo si nekk soo ko sangoo rek yow xool nooy mel ah kii set nga wécc si tilim si gàllankoor si cat làmbiñ bët liggéey lépp luy negatif mucc nga si ba pare nag mu defal la kaaraange nga xam ne yow su la neexee dootoo laal kaaraange ku la laal ku la laal mom di nga ko yërëm soo moytul di nga ko defal ay fi daaw ku la laal wa waaw moom soo xesee ba laal mom sante yalla la waaw kaaraange total a ngi nii kooku may taxaway bu ñeek bi ñaarel taxaway bi ki comme parfois mbiri day xawa a ñu gene secret ba nga xamne ne rek maam day yombal mbiri moy da ngay bind fi samumin wa hamim 88 nga koy bind. soo paree da ngay jël kayit bi nga lakk ko ba mu nekk dóom nga def ko ci saafara bi soo xëyee rek raxasul soo xëyee rek yow jëla nga raxasu rek nga dem sa yoon nga xool nga xool nooy def nooy def ak koom waaw ku ko def di nga sant yàlla ñetteel taxawaay bi ma kii moom zikar la zikar la dangay gis kenn nga xam dafay jàng ba pare teg ay diplôme mënul am liggéey kii am na capacité bi am mën na nangam te mënul am liggéey bëri na fi mais dañ ne képp ku bëgg a liggéey defal fayda bi lan ngay def dangay ngay fii jii dexa 111 kiraamin bararatin 111 léegi nag ni ñu koy sikaree mooy guddi lañ koy sikar saa yoo koy sikar nag li si gën mooy utal benn kilo suukar teg ko sa wet kilo suukar ngay wut nga teg ko sa wet boo am rek nay kilo nga teg ko sa wet soo sikaree ba pare soo xëyee nga saraxe kilo suukar bi ñu ne juróom-ñaari fan yi du mat yow nga dem di am problème mu liggéey balaa muy mat sa mën nañ la woo si liggéey surtout ku déposé nag chaque jour soo zikkaree soo yeewoo tey soo ko tàmbalee tey tey su guddi nga zikkar jëla kilo suukar teg sa wet soo zikkaree fa soo xëyee nga dem saraxe kilo boobu suba nga utaal benn teg soo xëyee sa kenn du ko def juróom-ñaari fan amoo liggéey balaa muy mat sa ñu woo liggéey surtout ku déposé ku soxla kii nii soo ko defee yàlla jox la liggéey ki am liggéey ba pare ah xanaa kooku yokkute lay bëgg ñu yokkal la sa garaat waaw ma bañ bañ a bañ ka ah waaw moom sept jours yi moom il faut mu génn waaw même même yow suñ la wooyee liggéey da ko mottali de bul laa ñetti fan ñu woole liggéey nga am liggéey nga jël yëpp teg déedéet fexel set jours yi mat waaw moom mooy siru bi fii ji daa kiraamin barara ci bu nekk 111 waaw foo naa lool sonnalul kenn 111 ah kon kooku mooy ñetteelu taxawaay ñeenteel taxawaay bi ah bëri na xëy na am na ñaa xam ne xëy na léegi sa kii na mais képp ka xam ne bëgg bëgg ngaa nekk <laughs> ka nga xamante ne moom dootoo jàmbat ay yére koddaay moom yow dootoo dootoo si suñu koy jàmbat del si kër li yaa yor xata 319 nga xool yow waaw yow dootoo si ñuy jàmbat ay koddaay aw ma yére wala nangam da ngay mujj di maye sax 319 <laughs> dee ko liggéey rek xool di nga am yére ba xool di nga am yére ba yow soo moytu da ngay maye waaw yaa ngi dégg leer na leer na foofu ñu jàll fii foog naa leer na de ma jaaras waa dama ne taxawaay bu njëkk bi dama ne da ngay bind faatiya faatiya bu njëkk bi da nga koy ràbbalanteeg wasamaay wataare ba lukulu aaya soo defee bisimilah rahmaan alhamdulilah wasamaay wataare ba mu jeex arrahmaani rahim wasamaay wataare ba mu jeex maaliki yow mi diin noonu nga koy ràbbalantee ba faatiya jeex beneen faatiya bi bisimilah rahmaan alamin nga def kursi yu ayatul kursi ràbbalante koog moom ba mu jeex nga jëlaat beneen faatiya bi nga ràbbalante koog falaq yi beneen faatiha bi nga ràbbalante ko naas yi beneen bi boo in yakkaadoo li si na kafaroo beneen bi sóoratu kuyrat sam su kuyrat moom ngay ràbbalantee soo paree nga ut onze cent onze puso cent onze lamset nga ut ndoxu géej nga boole yëpp nga def si benn cin nga baxal ko ba mu bax durant cinq minutes dix minutes nga teggi ko ba sa yaram ñeme ko nga sangoo ko benn yoon guddi kenn ko sangoo ñaari yoon kenn ko sangoo parce que soo ko ñaari yoon di nga tëju tëju ba nga xamante ne di si bëgg génn mu tëla parce que kii moom li lépp lay tëj di day dindi lu nekkoon si yow lépp lépp lépp sangoo boobu nga soo moom la raxas kon bul sanguwaat soo sanguwaatee maam day seere effet mel ni yow mi ñëw tëj du dolliwaat day raxas lépp ba pare nag aar la kaaraange nga xam ne moom su la neexee sa ngiru du dootoo laal kaaraange ku la liggéey moom dem laa bi lu la waay fexel soo toogee maan fu ñu lay fexelee sax ña lay fexel dañuy fexe day këppwaat seen kaw waaw lu la waay fexe rek day këppwaat si kaw waaw te gis nga ku ku ku jël sa tur di ko yóbbu si sëriñ su demee si sëriñ bi sëriñ bi su muusee dina am ay signe su tàmbalee pour war a bind rek dangay gis muy juum muy jaxase su yewoon nag day bàyyi su muusee day bàyyi du yeggali yow mi di dem tamit pour liggéey nit ki so génnee di dem rek nga gis benn ngant rek ñu gantal la wala fa rek nga bayyi so forcé rek dalay duma ko moy taxaway bi njëkk ñaara taxaway bi ki dang kay bind da ngay ut benn feuy nga bind si fi samoomin wa hamimin fi samoomin wa hamimin nga bind ci 88 nga koy bind so paree nga jël kayit bi nga lak ko ba mu nekk dom. nga def ko saafara saafara boobu saa yoo xëyee raxasu sa loxo nga dem doxi say soxla xool waaw ah, ku ko def sa loxo day tooy waaw ah, ah, waaw xaalis moom doo too ko jàmbat sa loxo day tooy ñetteel bi ma ne taskuru fii jiide xaa fii jiide xaa cent onze kiraamin barati cent onze hmm? léegi soo koy liggéey guddi lañ koy liggéey nag mais soo koy liggéey da ut suukar kilo suukar teg soo liggéeyee ba pare soo xëyee su suba gi nga jël kilo suukar bi saraxe deuxième jour bi nga teg kilo suukar soo liggéeyee xëy saraxe balaa muy mat sept jours ñu woole liggéey wala nga am liggéey fanaa leer na képp quand même dafa bëgg di am koddaay dootul jàmbat ay yére lay liggéey lii yaa yor xata yaa yor xata trois cent dix-neuf ku koy def di nga dem bay maye ay yére يا يرحتا يا يرحتا وا يا نسي الله باركه وما ذلك على الله عزيز السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته